ndaje bi dafa bokk ci sunu programme at bi at mu nekk ñun dañuy xool li ñu war a def ci at mi bu ñu ko xoolee bu ñu génnee li nga xam ne dafa nekk ay session muy ordinaire ak extraordinaire dañu war a def réunion commission pour càmbal ci ay sujet ñeent lay doon kon ñeenti sujet yu mag yoo xam ne soxal na askanu CEDEAO ak Afrique ak sax àdduna bi ci la ñuy waxtaan buñ ci waxtaanee danañ ci def ay recommandation yoo xam ne yii dañ koy jox gouvernement yi yii ñu jox ko assemblée yi yii ñu jox ko presse bi yii euh, société civile loolu dafa mel ne moo gën a nekk sunu liggéey ndax parlementaire des fois damay dégg ñu naan de nan leen defal nangam ñu dañoo mënuñu def dara nan leen waxal lan man gis ne lii problème la ñu jeex ko ba xam ne problème la ñu wax ko bu dee lu ñu war a ŋàññi ñu dénoncé ko bu dee loo xam ne war nañ cee def proposition buñ ko amee experts yi wax ñu ko ñu jël proposition yooyu porté ko ci gouvernants yi loolu mooy sensu commission yi ñuy def ndaje bi du ndaje plénière boo xam ne député yi la ñuy daje dañuy jël rek député yu bokk ci ay commission ñu indi leen woo experts yi ak ñi nga xam ne administration bi la ñu waxtaanee question tey nag question bi ñuy waxtaani bu am solo la ndax xam ngeen ne crise yi bari na ci Afrique bari na ci CEDEAO boo demee Mali am na fa Burkina am na ko même Sénégal am na fi am na Nigéria am na Niger yooyu nag dafay jur. ay gàllankoor ndax ay nit danañ jóge fi ñu dëkkoon dem fenn nekk ci àll bi daw ndax xeexa fa am foo xam ne fii ñuy tegi bomba fa am ay terrorisme foo xam ne fii ay crime ak i vol ak i viol daf fay am yu mel noonu nag ñu gis ne loolu dañ ko war a taxaw ñun xool ko càmbar ko ànd ak experts yi ak ñi xam la fa ne ak journalistes yi bu ñu paree ñu tënk bataaxal boo xam ne dañuy wane ne ñun kat lii lañ ñu wax ne moo am foofu li ñu yaakaar ci solution yi ñu wax ko mais dañuy porter plaidoyer bi yóbbu ko ci sunu assamble ci niveau national bu ñu demee député bu ne bu demee ay plénière foofaam day porter combat boobu loolu mooy sens bi ñuy jox bii. CEDEAO réglé na ci problème CEDEAO bu amul woon tey ñun ñii ñëpp génn nañu fi ñu ne CEDEAO Mali ñu ko songee moo taxaw. Burkina moo taxaw ma nga taxaw Nigéria Gambie bi Yaya Jammeh bañee ñoo taxaw bi nga xamee ne Guinée Bissau problème am na ba def nañu sanction sax ci seen réew ñoo taxaw mais yooyu yëpp bu doon amul woon kon addina bi tukki na ci ñun yow wóor na la ne djihadistes bi ñu songee Mali Sénégal lañ jëmoon Gambie Guinée Bissau côté bi bépp dañ ko warul a tasaare mais CEDEAO am fulla am fayda taxaw taxawaay bu mat parlement bi ñu war ci sant yàlla parce que sëñ bi ku gis nen bu weex lànk bañ koo gis di wax leneen daf laa neex CEDEAO parlement bi am na fukki at ak juróom Sénégal doog koo jël Sénégal ñaari at la ci def def ci loo xam ne fukki at ak juróom yi ñi fi nekkoon defuñu xaaju liñ ci def ñëpp ñi ngi commencé xam CEDEAO benn exemple rek lay cité Maroc bu Algérie jeexee ci réew yi nekk fii ci Afrique de de de de l'ouest ak nord moo ci ëpp doole tey jii may taxaw ak yéen maa ngi yëg lu ëpp fukki invitation ci kuréel yi gën a kawe ci Maroc te buñ may woo dañ may jox billet ak ñi ma àndal jox ma hôtel jox ma escorte ba ci avion bi pour laaj ma sama xalaat bërki démb laa jógee ci parlement ba le 24 25 woo nañ ma ci chambre des élus conseil régional bu uj Oudia la xaw ma Oudia benn dëkk la xaw ma ko du 23 au 26 may seen invité d'honneur pour ñu war ma déglu ñi ngi may laaj confirmation te mënuma dem parce que ñi ñuy sollicité dafa bëri mais dañ ni euh, loo dëkkal yàpp ko waaw looloo am way Moustapha Cissé loo commerçant bu nekkoon fii eh, Moustapha Cissé loo cey ku ko joxoon addina bi addina bi bu ma ko jotoon dina doy waar donc loolu dafa mat a wax ndax transmontana bi may wax ñoom même Belgique ñi ngi ñu fay woo ci ndaje bu ñu def seen ndaje yëpp léegi ñooy seen invité d'honneur te du lu tuuti ndax loolu roi bi Hassan II moo ko créé woon ay junni junniy nit ñoo fay dem mais ñoom dañu bëgg lépp lu ñuy def man ma ñëw indi fa kon loolu nañ ko jàpp te nu dox tuuti ñun daal gëm nañ ne yoon wi ñu xal dugg ci duñ ci dellu ginnaaw ku ko wax daanu dem ku ko waxul daanu dem ndax lu weex moom ku ko bëgg a def lu ñuul day lànk day weex nun daal ñi ngi liggéey pour communauté bi engagé nañu yàlla far nañu dañuy continuer mais duñu xool suñu ginnaaw problème boobu ci la ñu ne ngeen jàpp ci rek jàllale ko te xam ne Sénégal en tout cas am na ndam moom parce que Sénégal bi mu jëlee yëf yi yëf yaa ngi dox <laughs> loolu rek moo ci am merci